garanti à 1000 francs nga garanti sa bopp à 3500 nee naa la feebar faju ci la bokk waaye nee naa la keroog bi ñu leen demee remise de drapeau bi waaye dañoo ànd ak koora xam nga gisuma woon koora waaye yéen journaliste xam ngeen luy koora laa ilaaha illallah cay koora bu leen ko jàppee journaliste bi bu leen ko jàppee bi day jàng day jàng bu ko ko <laughs> ndeysaan nee naa la góor baax na jigéen baax na réseau département des femmes mutualistes de Dakar caatu limousine écurie kaay baax ak ki nga xamante ne mooy caatu Dalifor écurie Dalifor mbooloo ñu tuddee ko jigéenu Moustapha Mbeng Moustapha Mbeng nga xamante ne séemi moo ko ñor séemi feebar faju la waaw séemi waaye la carte bi c'est à 1000 francs nga garanti sa bopp à 1500 francs maanaam tey jii bu doon cent mille la. Mhm. ñoom ñooy fay cinquante mili yow nga fay cinquante mille. loolu am na solo mais bu ñëwee nga jël ko laaj ko ci semis waaw dama koy jël laaj ko ci semis bi. ci semis bi waaw foog mu la faram fàcc ci tuuti daal di koy yaatal tuuti. tourné leen waaw tourné leen complètement ay ca ba tey Ouzin production nee naa la ñi mu tuddee drapeau yëpp dañoo ruus waaye drapeau bii nag dafa nekk drapeau boo xam ne dafa ñor ndax si santé lay wax semis nee naa la carte bi c'est à 1000 francs nga garanti sa bopp à 3500 ñuy remercier bu baax ki nga xamante ne mooy président Moustapha Mbengue suñu papa suñu xarit suñu lépp jigéenam bi teewal ko nee naa ñëwoon naa keroog nga waxoon ma di nga def forte mobilisation ñëw te li nga waxoon def nga ko. macha allah sant yàlla sant yàlla suñu yéene ëpp na waaye tey euh, vous n'êtes pas sans savoir que dafa am grève donc oto amul c'est pas évident du tout mais sant yàlla ndax bés boo ko tëggee fekkee ko te tal ko loolu rek doy na sant te comme je disais Ousin mi suñu doom la suñu rakk la suñu lépp la mu nekk xale bu baax bi nga xamante ne nii vraiment il est dans l'employabilité des jeunes ñun ñu nekk dans la santé kon rencontre boobu day nekk rencontre bu riche day nekk rentong bruche ma boole si nag waaw kër professeur Daouda Ndiaye ñi nga xam ne action sociale la ñuy def ñëw gunge ma ci bés bi kon tey boo koy seet le futur moo fi nekk y'a la santé la l'employabilité des jeunes y'a les femmes y'a l'action sociale loolu boo ko boolee rek mu neex y'a tout le monde y'a yaa macha allah waa couverture maladie universelle à travers les mutuelles de santé mooy 1000 francs ngay joxe muy adhésion bi mooy wane ne man bokk naa ci association bi 3500 mooy cotisation annuelle bi nga xam ne moom ngay joxe nga am une prise en charge à 80 pour cent hôpital euh, poste de santé centre de santé euh, dañuy jël analyse dañuy jël euh, accouchement dañuy jël consultation dañuy jël consultation spécialiste dañuy jël médicament à 50 pour cent bu dee médicaments génériques yi nga xam ne dans les structures de santé on les prend à 80 mais du loolu mooy li neex di le li neex li mooy képp koo xamante ni yërëm nga ko mun nga ko si boole amul benn lien de parenté bu obligatoire bu ci nekk boo xasee am 18 ans rek mun ngaa bindu mun nga bind keneen koo attan nga ko. waaw macha allah gis nga gis nga. culture xam nga làmb ak culture te ñun nag Casamance lañ dëkk. ñun Casamance lañ dëkk quand je dis ñun mooy man mii nga xam ne maay présidente bi ndax sama famille fu ma bokk bokk nañ fa tiital nañ ma rëkkuñu ma faqataluñu ma lu ma bokk ñu si lu ma yëkkati ñu ngi si kon sant yàlla moo tax nag fi def différence waaw ah, gis nga ñaaw kon fii neex na kon Casamance lañ déplacé macha allah Casamance lañ dëkk maa lay fay Madou di la ziar kontaan ci yow di am mbégte bu baax a baax ci nga xam te ne sama yaay ji rëccuwuma lu ma ko tuddee drapeau bi mu nekk Maimouna Ndiaye Sarr yor euh, réseau des femmes départementales de Midialis vraiment tey bi ma ko tuddee drapeau yi ba léegi gis naa li nga xamante ne moom na ci dox waaye matu du ma def lu dul sant ki nga xamante ne mooy suñu grand muy Moustapha Mbengue parce que lépp moom la tey ñëpp gis nañu lépp lu may wax ci làmb ci couverture maladie universelle laa jiital ci mutuelle de santé laa jiital pour parce que lamb ji gis nañ fi nekk chaque jour lamb am dimanche ay mbër am blessé ñiy blessé sa seen loxo jotu seen ginnaaw toujours may wax naan nañu fexe ba kenn ku ci nekk am carte li nga xam te ni mooy CMU tey mutuelle boo dem di nga am ci carte bi sant de santé boo dem di nga am ci carte bi nga assuré sa bopp 3500 comme ni ko sama yaay waxee kon tey loolu bu amee ñoom ñu ñëw dugal seen loxo ci làmb di ma jàppale man mënu ma lu dul sant ko bu baax kon Moustapha maa ngi koy sant waaye nag di gërëm sama sama marraine bi sama yaay ji tey lii mu def nii jafe na ci jafe na ci marraine def délégation bu toll nii en même temps grève am oto yi dawuñu mu lépp lu mu jàpp mu bàyyi ko ànd ak ñi nga xamante ne mooy sama sœur yi suñu papa suñu yaay ànd ak borom baax bi kon lii ñu def nii tey maanaam kontaan la dafa sigilaat làmb parce que bi mu génnee fii ñi nga xamante ne ñooy dund làmb ñoom moo ne ma xaw ma kan ne moo manqué parrain ci làmb ji mais du parce que indi nga parrain yu am valeur indi nga marraine yu am valeur ma ko ñii yëg lu ñuy liggéey liggéeyuñ ci dara lu développement yënguwuñ ci léegi lu dul santé kon tey maa ngi gërëm bu baax ñi nga xamante ni mooy képp kuy liggéey ci mutualiste si képp ku bokk ci réseau bi maa ngi lay gërëm di wax ne drapeau bi incha allah dinaa dem ba tëggul combat roi des arènes tuddee leen ko ñoom incha allah di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla sotee ak waa Casamance yëpp stade bi waaw sant yàlla rek xam nga tey journée des espoirs bu ñu ko jëlee mercredi xëy na li tax mu xaw a doy waar sax mooy grève bi amul supporters yi mënuñu ñëw mais stade ni mu feesee woon sànq ci 4 heures ku daan ak ku ñu daan nga say supporters dem mais sant yàlla mais di gërëm yéen presse bi parce que dama naan toujours matu aw ma fay yow sama matu nga tey pendant avant après lépp da ngay nekk ci li nga xamante ni mooy kii bi kon vraiment waaw suñu matu comme suñu matu nga ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di la wax ne vraiment kontaan rek réussite totale aw ma seen fay yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla fay merci beaucoup. ndax li muy def créer emploi la ñu ngi koy gërëm bu baax a a baax ko ñaanal réussite mu ngi jëm nag ci beneen journée muy le 8 mars ngeen xaar ko foofu caa ki nga xamante ne mooy màcc màcc ak Mbacke Faye war nañ caa bëre nee naa production cay Ouzin kenn du moom ci biir réew ah